nuyoo ci xolam Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Bara Mbacké mi nga xam ne ak Serigne Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne bis bii gën a gudd ndax seer rek la doon te seer si itam li ma ci war a wax lépp sëñ bi nag ñu fay wax ndax barke bi ci mënoo ko tudd te tudd Cheikh Mouhamadou Ba kon lii sax dañ naa ci ay leeral li ma sëñ bi joxe ñu gën boole waa waa télévision RTS li ma la joxee kàddu leeral naa ko waaye sëñ bi ak daanaka boo ko tëgg te ni nga ko waxee itam ñëpp seere naa ci xam naa ne noonu la demee kon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké dama seere woon ba fi bàyyi ko rek nga ne moo njëkk a sol mbubbum zoro yëtan dañuy yëtan tu jëndi nañ yenn na bi yëpp Mustafa te tey ba ñu wax suñu xotti bu tilim sëkk tawfeex ñëpp ko wóolu Serigne Touba ci islam loolu tànn Serigne Touba yàlla defal ko ndimbal itam mu loolu ci way ñu bu teg la na mu mel ci Serigne Touba Cheikh Mahamadou Fall day wax ne chaftu bu mooy indi xubbil xadim yi fadla dara Cheikh Mahamadou Lamine Bara léppam Cheikh Mahamadou Fall dafa jeex ci moom bëggal ko koo dara dara xëy ko ci xolam bëggal ko ci xolam boo xamee ba ñëwee xam fi koy jaar andi si xolam mu liggéey liggéey boo xam ne ci jëmmam la jiwu bi nag da Cheikh bu Fara gërëm daa ko wax ne jataay bu ma jiitu rek mën a ñëw mu doon bëtt ko liggéeyam njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp rawatina Cheikh Abdoul Khadr Cheikh Abdoul Ahad ak sëriñ Saliou kon moom dafa dàq ay ngërëm bi fi Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké fan yu bàyyi ko mu nekk ñëw nañu te sëriñ Fallou itam xam nga ne xel koom bu ko mos a santaane amoon na ay ndaw yu mat waaye mooy demoon ko mu saa su xëyee dem ànd ak ñoom liggéey ba liggéey bi jeex kon Cheikh Mouhamadou lay baara lépp lu mu am ci cër rek da ko yeyoo ndax da koo jëf ko Serigne Touba jëf ko ci diggam ci Cheikh Mamadou Fadi suñu borom it dimbali ko defal ko tawfeex dafa am ñett yi ci mbirum Serigne Touba Cheikh Mamadou lay baara bu sikk sàkk li ñu wax mën a xelal bu chèque bi moom nekku ci moom dafa wóolu Serigne Touba ba nga xam ne amul lu nga àttan moo tax Serigne Touba yi doy loo xalaat yàlla suñu borom nga defal ko muy jëm bu baax jàppale Serigne Touba itam daa jàppale ne dafa sonn bu Serigne Touba ngir liggéeyal ko Serigne Touba waaye mosu ko yor ci moom mu lax saa yi fu ñu doon dañu jëwaat jàppale Serigne Touba dañu jëwaat taalibe Serigne Touba kon moom na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké taxawoon ginnaaw Serigne bi noonu la taxawaat ginnaaw jëpp Serigne Touba delloo si ñëpp dajale ñëpp dalal seen xel yàlla suñu borom itam defal ko ndimbal li mooy tawul wa min shahaadati fataa xaytu asad an laa yaruddahu fuaadu zir asad bokk na ci taxek nit mooy xol kenn du ko gàntu Cheikh Mouhamadou Lay Baara suñu borom defal na ko ndimbal xol yëpp a ko bëgg loolu nag yéen gi yéenoo ñëpp jàmm moo ko bëgg mu doon jëm joo xam ne itam ku ma sa am aajo ci àdduna ak àllaaxira bu dee bu dee aajo yu bëri da koy indi si fan bu faj saafara bu dee aajo yu saxit léegi jotaay bi yàgg na te kenn amul ci jëm waaye kenn ku ci ne jigéen ñi ci seen liggéey sa bopp sa morom liggéey ma ko bokkul loo fexe ne ba ëllëg ñu ci ko fàtte kon mu ne mënuñu mënuñu ko fay dañ koy ñaanal rek li nga xam ne wóor nañu ne làq na ko te moo doon li itam ñu ngi gërëm suñu fan yaa ngi lay dott ko fa mu tëdd di gërëm bu baax sëñ Moustapha di gërëm rakkam yëpp ndax li ma ko daan seeral rek mën nañu soo ñàkk gërëm ndax dana ci jiitu suñu Moustapha mu nit ko baax la nit ko dëgg la nit ko jàpp jàmbur la nit ko doy la suñu Tuubaa suñu Moustapha foo ko fekk lu doxee ci yite bi la dox jëm la jox ni itam ku am fulla la waaye li fi gënoo ko li fi waay jël nekk ci tam lépp lu mu mën ngir waay jël wax na te def mu ne sa borom waay jël ngir jëm ne mu ne si fan wala mu ne si daanaka saa bàyyi ko dinañ ko Cheikh Sidi Moussa dañoo ñëw 2010 loolu Serigne Touba ci 2011 agsi wax ko ko ba ñu agsee ko ko président Abdoulaye Wade ne ma ah man de gën sama yéene mooy sëriñ bi bàyyee ko man tax tabax ko mu àgg ko waaye nag ab taalibe la ab taalibe rek lu mu jëloon a jëge dama jël daa ngi jël lépp ne ko jëbal laa daa yónni ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ma naa ko wooye ma fekk ko ci kër gi ci dara mu ñëw mu yëkkati liggéey ne ko defal da ngay jëwuñ ci kon mu ko defee ne bu ñu dee sol waaye sëriñ nag yi mu ngi def teewul ba nga xam ne sax nañ liggéey ca loolu jëf ba la nga nii ba suñu gisu tey bi mosuma ci ñëw dara ñëw ndax mosu ci def lu ma woon mu ngi baax a baax mu ngi digg bala ko def bu fekkee yéen a ngi leen xaaral ba ñu war waaye yàlla def na caw bi lépp mu suy dara ba ko liggéey ba doon wala ba liggéey kon ñu yow ma sant suñu liggéey mën naa koo seere ne diirum liggéey bi saa su ma ko woowee néew ma ko woo te nekk ci kanam dimanche sax la ko woo fekk Sëriñ Tuubaa waxoon ne ma ma ma jox sa lépp ma téye la sa lépp ma jàpp naa jël lépp def ko Sëriñ Tuubaa kon liggéey bi bañ ko àndee keroog fii ci kër Sëriñ Tuubaa jataay bu métti la ko keroog waaye wax su ma waa fii lay xëy ma yow Rasulullah suñu kon dara ñu ngi si tuwaay li si dara ñu wax léegi rek ci président daal ak président Macky ñoom ñoo war a sant si tuwaay ndax seen tuwaay yëpp suñu borom xëy na yaa ngi ci àdduna ak àllaaxira képp ku ko jëfal ku ne tànn gi gën a bàyyi ko kon képp ku am tawfeex seen tuwaay yi ngeen yaa ko sant li tax nag ma yeexee ko léegi ndax Youssouf Cheikh moo doon baax maa ko war a jëkk ñëpp المسلمين ويعرف ومعه السلام بالاختيار لحسن ظنه بذلك التابع في نظام الكتاب العلمي الشيخ محمود منتهى كما سنتون بريسا دافيدو xarit yi bu ñëw suñu soxla xaaral bu jëloon kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko jeexale rek ñaan bu ñu di suñu borom def barke aay bi ñu fooy indaloo yàlla suñu borom sànq yitte ñu fooy indaloo yàlla suñu borom sànq damaa am nag yóbbante bu ma Cheikh Mawal mu taxaar yóbbante waaye suba la ndax mooy li ñu tëjee jotaay bi kàddu yi mooy yóbbante ci taal bi loo xam ne ñetti at la benn ci taalibe bi jëm benn ci sëriñ Mbacke bi jëm bi ci des li moo wax ne moom laa bëgg ba leer lu ca ak bi danaa ko leer ba ñëpp déglu incha allah li tax ma xam ne rek fu ñu daal di aajo yàlla dafa ko saafara mooy dara ji ki koy defal ndax Cheikh moom lay baara dund naa moom loo xam ne man bu ko xamul tam xam naa ko fees dell si ndax toog na ci biir mu nekk maamu yàlla